assalaamu aleykum nu ngi nu bokk yi fi daje yëpp tabarkalla yal na yàlla def jàmm yal na nu yàlla boole taxaw yal nu yàlla taas ci barke borom guddi gi wax nañu ni bidaa la waaye bidaa bu rafet la te comme bidaa bu rafet la rek tabarkal la te ki ko moom mooy kilifa ñépp tabarkal la yal na yàlla ñu ci leeram yenn yàlla may len gen am wér no am wér yenn yàlla may len gen am njàmbaar ñu am njàmbaar yenn yàlla pass pass yi yenn yàlla dalal xel yi dafa melna na dañuy barkelu rek ndax xamna lele am ñu wax ni nu dem seetaani gàmmu ga waaye dafa mel na pour ñun du seetaan dañuy bokk si ci li yonent bi moom waaye du seetaan nag mu mel na rekk ñu war jàng faatiha jàng juróom ñetti suratu Quraysh ni ñu ko daan defe tabarkalla fa tabarakallahu yenn yàlla defal lu jàmm ju bare bare bare xam naa comme toogaay yu du yàgg te it borom guddi gi moom loo wax ci moom ci lu baax rekk am lu des te nun la am comme njaboot kon nag ñu jéem a waxtaan rek waaw waxtaan wi nag ci moom la dellu waxtaan wi ci moom la dellu tabarkal la dafa mel na ku yebu takku rekk te ñeme ko mu gën waaw ndax caalit du ci génne kenn mel ni kon ku yebu takku rekk te ñeme ko ndax affaire bi fa mu dale dafa yàgg fa mu dale dafa yàgg ndax mag ñi bu yàggoon dan nañu daan nañu tudd li ñoo wax damirul kawn defe naa ci jamono ñoom Buusiri baat bu siiwoon la damirul kawn le côté caché des choses moo amna am sax ñu wax ni imam Busiri def ko jamaa ne dafa bañ am ñu wax ni du loolu xëy na li muy wàllu société moo tax te dafay tudd ñi jur yonent bi yépp lam tazal fi damairil kawn tuxtaaru laka al ummahaatu wal yonent bi daan na def bu taggee boppam tudd maamam yépp maamam yu baax yi góor ak jigéen su àggalee daldi wax ni fa ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar waaw fekk tiitaruwul la faxra waaw la faxra loolu la yàlla wante fa mu tàmbalee moo xaw sore ndax ñun nee ñu iblis lañu am comme noon wante ñi ñu am dëgg-dëgg comme noon ñoo iblis surga surgale ci ñoom yàlla xam na ko soo demee ci kaw yàlla formé na fa ay mbindeef ba àgg ak ñoom ci xam-xam ak kattan boo seetloo iblis danga naan surga la ci xeetu mbooloo yu mu fa bind te di leen forme di leen jox xam-xam xam-xam yu kenn xamul na mu toll waaye dafa mel ni loxoom dafa wex li wolof di wax ni diw ndey jooram dafa wex mooy koo xam ni bu la defalee teraanga doo ko sant waaye ñooñu itam dafa mel ni dañu xaw jaaxle te li leen jaaxal mooy damirul kawn ndax tombu leer tombu leer ba ca biir moo ub seen bopp ndaxitam ñoom am na lu ñu dul nangu li ñu dul nangu mooy yàlla bind xeet bu leen gën kooku duñ ko nangu te jox na leen kàttan jox na leen xam-xam jox na leen sañ-sañ ba moo tax bi ñu xoolee projet bi dalul seen xel ba mu daladee seen xel nag ñu séddali ko ñaari mbooloo mbooloo bu wax ni nañu def ndànk ak mbooloo mu ni danoo xare kenn du fi bind mbindeef mënu gën projet bi di dem di dem ba xëy sotti ñenni woon du fi amee daldi di takku pour xeex ak yàlla ñi ni woon nañu def ndànk ñoom daldi topp yàlla moo tax woyofal mbir yi ëpp naa def ndax xare la xare la bu day na ñey su ko defee ñu nekk ca ay millions d'années Adama soog a judd ay millions d'années walla ay milliards d'années sax Adama soog a bu ko defee ñu yebal seen surga bu ñuy wax iblis pour mu wone seen yéene te mooy fas yéene dara du dox ملنا لما تبايا خلا كوكو ويا فالريك ديف مصيبة بوكو ديفي بمير الكون مكني أميكو مكني أميكو bee am ñu koy root si ci ñoom ba bi ñu agsi ci wàllu tubaab yi tubaab yi tudde ko conscience universelle waay yàlla

بامير الكون moo الدوف a duuf al alwaayul alami conscience universelle lu ñu àbb la waaye tur wa deug deug deug borom bi waxuko te ma nga ca alquran tuddewu ko damirul kawn tuddewu ko conscience universelle tuddewu ko alwaayul alami bi mu koy nettali yonent bi pour wax fi mu jaar ci lay soog a tudd tur wi bu fekkoon xàqataay bokk ci jikkoom keroog bi muy nettali affaire bi kon doon na yi moom yàlla ndax daf ci gis réussitu projet ak échec gu ñi daanu ci kawam bëgg na ci ba mu ëpp ci limu def te ba mu ko tàmbaleeg bi muy aksi fekk na mu mat ay milliards dani mu di ko li yonent bi nak di ko won importance su projet bi ak bi non yi jóg pour combattre ko xanaa kon xare bi tàmbaliwul tey mu di ko ko nettali pour itam jox ko tur wi moo tax mu wax ko ni ko wa in yakadu alladina kafaru moo xam ñi ci suuf la wala ñi ci kaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim لما سمعوا لما سمعوا لما سمعوا الذكر ñu soog a xam ni tuddul damirul kawn tuddul conscience universelle tuddul alwaayul aalami mi ngi tudd ak bikr waaw in huwa illa dhikr wa in yakaadu alladina kafaru لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون خمجوكو خندلون دانكوخ مولان دسي واحد دنيو باي ويقولون إنه لمجنون تفكنا وما هو إلا ذكر وإلا ذكر للعالمين نعم mu mel ni limoko def jamaa te féetale ko société juumu ci ndax ak dikr firi conscience universelle ay dimension yu dul la ñu ca la ñu université yi la ñu ca centre de recherche yi li ñu ci sédd fi mystique yi di jaamoo yàlla ca cimetière ba dimension yi dafa bare moo tax alquran ak dikr boo tudd dimension la ci ak dikr alquran laa wax ak dikr boo ca tudd dimension la ci ak dikr fasalu ala dikr إن هو إلا ذكر وقرآن مبين شري إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن يود سيكوريتي موتاخ ذكر بو تدو القرآن ديمانسيون لك ذكر موتاخ غوار كتوبنا واو بن فر بن بابو su ko defee wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim ma di ci tudd baat bu foo te ñaaw te du dëgg moo di yàlla dafa wax yonent bi ni ko bu ñu la mënoon a dëmm dëmm la lek la ben yol سيد الحاج مالك بند نكو نينا كوني دم امنا دينغا دم سفر دا دم امول نينا نيت لك نيت كي نم نيت من لك نيت ci loru mën nga bokk ak nit ndey ak bàyyi ngeen di tukki ba xiif gisatu leen lu ngeen lekk te yéen bokk ndey ak bàyyi sañ nga dagg ci taatu kooka lakk ko lekk mu dëgg ci sa taat lakk ko lekk loolu moo am day fekk jàmbur nga di ko dëmm nga moo doone ku ko wax di dem safara parce que amul et pourtant am na ñu ko daan fegoo pour ni dañu bañ dëmm lekk leen nga gis ñaxas mi nag commencé waaye wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim xaqiqa la yàlla moo wax yonent bi ni ko espace intermédiaire yépp say affiché ci nekk pour ñu wone ni danga dof seen kañaan àgg na ci ak seen xundute espace intermédiaire yëpp def nañ ci ay affiche ni da nga dof wa yaquluna innahu la majnun te du dug te du dëgg wa ma huwa illa dikr wa illa dikr lil alamin waaw moo tax tubaab yi gisuñu leneen luñ ko tuddee lu dul conscience universelle fekk ëpp na loolu fekk ëpp na loolu mu mel na defe naa ni rootukaay rekk rootukaay rekk alquran doy na ci sëkk kenn xamul lu mu doon ndax ni mu tuutee te lépp nekk ci ni mu tuutee te lépp nekk ci te kudul naafeq même boo dul jullit nangu nga lool boo dul naafeq laa wax nangu nga lool ndax yonent bi nangul na yonent yépp te loolu nag jar nañu fay koko waaw ku melni Lamartine di tubab di chrétien wax ci yonent bi wax batax yaayam di ko tooñ ni ko yange salit saalit ko salituma dama wax dëgg Lamartine dafa wax ni ci alquran le gis aya bu ci nek doy na constitution pour un peuple te kenn rawu ko te gëmul kenn lu dul ay ibnu Maryam waaye jàng na alquran gis ci loolu kenn xamul lu mu doon ci téere kenn xamul aaya boo jàng mu jommal la aaya boo jàng rekk mu jombal la te ka muy jëkk jombal jommal mooy yonent bi ci boppam ki wax lii naka la ko waxe may doomu arab raw arab yi gën leen a xam wax di dégg wax wax ja xamloo ma kan moo wax wax ji moo tax doy na gàllaaj doy na lu nek in huwa illa dhikr bo de cher cher ñu ni la wa quraanu mubin nga dal di dugat ci biir alquran ndax ci bir rek ngay mën amé solution do do ko do to ko mën amé fenen su ko defee ña bu woon nangami milliard ciy at ni porojet bi du ñu nangu mu réaliser ñooñu li ñu am ci xeetu xam-xam li ñu am ci xeetu pexe li ñu am ci xeeti soldat yu mën a xeex ñu jógloo leen ni leen bu bu mu agsi mukk ñu ngay préparer ñu nga ca liggéey ba ñu nga ñu ngay taxaw tem ndax duñu nangu mukk ñuy tànn ci beneen xeet bu ñuy bindi ëllëg ku leen gën ñoom kooku duñu duñu ko bar pardonné yàlla ñoo lànk ba tëdd ca naaj wa te yàlla leen bind moo leen formé moo leen jox privilège yi mu leen jox ñu nekk ci boobu position jóguñu ci ñi ragal daw ñi ragalul taxaw temm fas yéene xaret yàlla ni ko doo fi indi beneen ras ñu nekk ci loolu nangami milliard d'années ba faf affaire bi ñëw lu ci nit man sunu borom soob na ko mu bind ras bu nga xam ni ci la fas yéene génne ki gën ñëpp wante du ànd ak jàmm xare rek waaw waaye du tëb tëb bind kooka dafay tëb bind raas ba mu war a jóge moo tax mu tàmbalee ko ci aadam moo tax ku weex bo xasse ko ñul dafa dof motax ku ni man géwél la te diko titero wala ku ni géer la te diko titero dafa chaxal parce que adam ben rek la won adam bu ñul amul adam bu wex amul adam géwél amul adam géer amul benn aadam moo am moo jur ñépp ñu di ca dem di ca dem di ca dem di ca dem di ca dem ba ni yonenti bi juddoo te lool rekk la moo waral coow li coow li ngay dégg yépp mooy bu fi yonent bi juddoo léegi nag juddu na pexe amatul xeexkat yowoon ca kaw asamaan yépp collaboré ak xeexkat yi ci kaw suuf ni bu ñu ko may fu mu dëgg tànkam moo tax ku bëgg lu baax te ni doo sonn danga nax sa bopp yàlla itam boo ko dee ñaan te mu gis ni yitte taxawaay nekkul ci yow du la may dara ndax principe ba mooy boo ko dee ñaan na ànd ak taxawaay waaye di ñaan rek na waaja doon ñaan junni yàlla may ma junni yàlla may ma junni <laughs> yàlla may ñetti fan yàlla ca biir néeg ba di ñaan junni ndax goro yaa ko laaj junni ni ko boo ko indiwul doo ci sa jabar de laaj gis mag mu baax wax ko ko mu ni ko yàlla ku ko ñaan mu may la tax mu dem ñetti fan mu tëju ko yàlla may ma junni yàlla may ma junni ñetti fan yi mat am kenn joxu ko junni mu génn ma nga xund ma ngay ngay xul rek man sonn naa ñetti fan yi lëm di ko ñaan junni benn junni te junni yi ci àdduna yëpp moo ko moom dem ba ci taatu garab mu ni moo yàlla te nga daaneel garab gi ci sama kaw garab ga sëgg wut ci ko rek mu fëx dem ba sore taxaw gis garab gi daanu mu ni gis ngeen daf ma naroon a rey <laughs> ni rey rek la bëggoon ci man xaw ma lu mu mokkalul waaye du rey ma ngay xur rek di dem di dem di dem di dem ba dajeeg benn charrette dugg ci ñëw ba ci wetu yaraax gis fa benn cousin cousin bi gis ko muy waxtu mu ni ko mu yow lu la dal léegi wuyuwu ko sax mu ne ko teen mu wuyu man xam nga ni man dama tayal te tubaab bële daf ma jox liggéey te ni bu sottee mu jox ma ñetti junni bu ko defee ma jox la junneeg juróomi téeméer mu mel ni loolu lan la lim ko wax lan la mu répété ko ko mu soog a wëlbati jublu penku ni allah kubar waaw léegi yàlla dikk na wante ñaan bu àndul ak taxawaay du nangu mukk kooku bokkul ci principam am moo tax da ngay ñaan te taxaw dangay ngay ñaan te taxaw dangay ngay ñaan te taxaw fii pour coono rekk la waaw fii pour coono rekk la moo tax am na ñuy bind di wax ni yonent bi sax daf daan dox doxinu picc te fekk amul wante seen xërte moo tax ñu bindee noonu waaye loo xër xër fa yàlla yem booya ba yem fa rek waaw waaye boo joxee yonent bi lu ëpp li ko yàlla jox yàlla xarek yow ndax sant la ko daawul dox doxinu picc dafa daan dox doxinu sportif moo tax doxinu cëriñ doxul moo taxoon Omar ibnul Xataab daan taxaw ca buntu jàkka ji amee karawaasam ku génn di dox doxinu cëriñ rekk karawaas ba dal bëgg ñépp di dox doxinu yonent bi te mooy doxinu sportif waye dañu mujj ni ko yowit aduna du ndax violence physique le ko bëggoon a faje te boobu it baaxul waaye mujj na kenn ku nekk di jéem doxinam ndax li ñu ko tudde citoyen universel le seul kii waay waaw bu ko sidna Omar ak xërtéem bu sañoon jullit bu nekk nekk citoyen universel te loolu mënul nekk yàlla li mu bëgg la lay sant ba noppi gàllankoor ya nga cay amit moo koy def yoonam li mu gën a bëgg la lay sant wante gàllankoor ya nga cay am moo koy def moo tax mu ni yonent bi na nga muslu min sharri ma xalaq ni ko ndax lu ma bind dana dégager yiw dana dégager musiba te noonu la ma neexee lu ci nit am man kenn amu ci pexe min sharri ma xalaq la wax de baax na de waaw dañu wax ni baatu bismillah ku mu musalul leneen du la musal boy jóg ni bismillah boy tok ni bismillah boy lek ni bismillah boy nan ni bismillah bu la musulul lo jàngati du la musul ba dalu lu mat a xel la waye ba tey rek wax na ko yi mat muslu min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب أمنا سما بن مام حاج سعيد النور نانا غني خليل بوكو تيميس دي فك كي كري وي جورم دنا غودفان neena gune bu ko timis dee fekk ci kër way juram dana gudd fan waaw wa min sharri ghasiqin idha waqab lu mata gëm la mata gëm la waaye min sharri ma xalaq moo lay won ni yëf yi lu nekk ngi ci biir lu nekk yàllaay mën a musle yàlla rekk ay mën a musle te dafa mën nattu te dafa xam nu muy nattoo di la seet ba xam foo toll li nga ko wax dëgg la ci yow walla du dëgg ci yow walla boo ca nekkee itam nekk nga jaar na yoon walla jaarul yoon kooku moom li mu ci man de façon ba mu koy defee moom rekk a ko xam ndax xëy na ki mu bind lay yàqal waaye moom dara du ko yàqal il s'en fiche waaw looloo tax feeñal na ci lu nekk moo feeñal na ci lu nekk keroog bi ñu xaañee yonent bi ba mu daanu te ñu ne deena jullit yépp fëx daw wëccu ko fa booba dafa am lu muy seetlu ba xam yonent bi lañuy jàmm walla moom yàlla lañuy jàmm te yooyu ëpp naa xeeb mooy wéy ba léegi bari na ku bare coow ci diine te kenn enregistré wul sa ngëm yàlla ko wax yonent bi les connecte. Il est temps qu'on y associe les cœurs parce que ñu ngi di taxawalu kenn enregistré wu te booba ñëpp a ngi topp yonent bi ñu ngi ci julli yi ñu ngi ci nafilé yi ñu ngi ci azaka ñu ngi ci ajj gi ni batay ken enregistré woko parce que associé wuñ ci xol yi lu mu waxati ci alam ya'ni lilladina amanu ah N'est-il pas temps qu'on y associe les cœurs moo tax xol su ñëwul rekk dara du dox xol su ñëwul dara kurus yéeg yépp a ci bu dikkul dara du dox moom nag moo mën a dimbale jaam ba xol dikk moom rekk moo mën a dimbale jaam ba xol bokk ca parce que xol it dépendrul ci nit ki dafa am fu mu dépendre xamuloon ñoo ñaa ko ame il faut que ñu bàyyi xel service yi nga xam ni ñoo ame li nit ki di def waaye boo nee man rekk la te fekk yow tuuti lañ la ca sédd du sotti du sotti mu ngi jafe am na mag ñu ci yàlla dimbile nag